monsieur le gouverneur fekk nga ñu ba tay ci kanam cheikh sidi makhtar mbacke mu sérel la sa liggéeyin bu rafet ci raison de diourbel yaa ngi nga andal ñëpp ba ci sous préfecture bu bu touba kon ñi ngi leen ci sant leen ci ñaanal eh, na nga disi si nak nañ fi bobu liñ fi indi won dañ fi ñëwoon téwal fi cheikh sidi makhtar mbacke yalla na yok ay léram bobay téwuñu fi won en tant que représentant xalif général de Mouride dañ ko fee teewaloon ngir moo yilif Daarul Xuddus moo yilif guy mbind ndax diggante Cheikh Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ñoo bokk waajur bu góor ak bu jigéen Sëriñ Bara nekkoon rakkam toppoon ko loolu di wéy ci suñuy waajur diggante sëñ Cheikh Gaynde faatma sëñ Modou Bara sëñ Abdou Aziz Bara muy dox ba agsi ci Baye Ahmadou Makhtar ak Cheikh Sidi Makhtar mu rafetal ko lool ñu rafetal ko japp ko dundal ko ba yàlla dogal tey cheikh sidi makhtar ñibbi ci wetu waajuram yu sell ya ñuy ñaan yàlla yokku leen leer cheikh moustapha mu cheikh sidi makhtar tey mooy jëwriñu sëñ baara ci guy mind bay ahmadou Makhtar mi nga xam ni moo yilif daaru ni nim yilifee daaru khudus noonu la yilifee guy mind ndax ñaari mag ñaari kër yi ku ci mag yaa ko yilif moo waral lu ñuy defandoo dangay gis su dara xewee guy mbind ñoom ñëw ànd ko ak ñun ñun itam lu xew fii dañ ko ñëw ànd ak ñoom moo waral sëñ Moustapha ma ni naa ñëw teewal ko fi moo fi waral suñu tànk kon monsieur le gouverneur moo nuyu la ci turu sama mag yu sell yi fi nekk ak suñu mag yi nga xam ne jëwriñ Baye Ahmadou Makhtar lañ nekk Touba commune sëriñ Cheikh Bombali sëriñ Cheikh Alioum sëriñ Abdourahmane ak mboolem taalibe yu mag yi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom ñëw teew si fi ci wàccaayu bis bi nga xam ni bisub Cheikhul Khadim la xam nañu ni yoonu murit benn bis gënalu ci Sëñ Tuubaa bis bi ñu doon wal muy màggal Daaru Xudoos gi benn bis it gënu koo màgg benn bis it gënu ko cee rëy ndax Sëriñ Tuubaa moo ñaanoon fii ci boromam ci njaareem ni sama borom maa ngi lay ñaan bis bi gën ci samay bis mooy bis bi nga xam ne damay daje ak yow te bis bii la Serigne Touba daje ak si euh, ak suñu borom subhaanahu wa taala ñibbi Touba mu dénkoon Cheikh Moustapha itam dénkaan yu bari la ca gën a ko mooy mu waajal ko ba indi ko Touba na mu ko bëggee na mu ko santaane digganteem ak moom la woon mu def ko ne ko Serigne bi bëggee woon. Cheikh Moustapha ci boppam bi njëkk a wut Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu nga xam ni Serigne Touba daa bëggoon ñaan waaye lim bëggoon lépp ak lim ni sa doon lépp. cheikh moustapha moko ko taxawal mo samp yoon wi moko organiser mo taxawal keur yi moko dundal kenn ku ne xam lim def itam ci liko seigne touba denkon ci jubayam ji ak ci dekk bu sel bi ba ci ngassum ray bi lol lepp mom matale ko mom cheikh moustapha du def dara itam du lu ndigalu seigne touba ginaaw seigne touba mo sak ñaanal boromam ne dama lay ñaan bis bi gën ci samay bis moy bis bi nga xam ci la ak yow ñak lu ci wax Cheikh Moustapha ñun donte ñun duñ ko xam motax Cheikh Moustapha am sañ-sañu woote màggal seigne Touba gi bis bi seigne Touba ñibbee Touba diko wote ci Touba am lu ci wax itam nak lim ci waxon moy kep ko xamni ni nga fanaan si Touba ci bisu magal bobu maa ko dégg seigne Abdou Sibara ci wéy magal daru ko dus gi mu wax ko né bis bobu kep ko fanaan si Touba di nga set ci ay ba mel bis bi nga gëné adina ndax malaaka yërmaande yi nga xam ni dañoo gunge woon ku tedd ki dañuy faransi di saafonte ak nit ñi malaaka yi bis bu ne dañuy wàcc waaye firnde bi ñu am mooy bi ñu xam ni day wàcc wàcc gu wér cëng ñu am ci yàqin mooy laylatul xadar bi yàlla wax ne tanazzalu malaa'ikatu war ruux fiiha waaye seex Cheikh Moustapha waxaat ñu itam ni bis boobu malaayika yërmaande dañuy wàccaat kon am nañu yàqin ni boobu malaaka yi dañuy wàcc moo tax ku fa fanaan yàlla faj sa aajo ba noppi yàlla seral ci ay bàkkaar monsieur le gouverneur loolu mooy màggal gi Baye Amadou Makhtar nag woote ko ñun nag duñ ñëblu ay wax dëgg duñ ci maslaa gis nañ seen taxawaay bu baax kenn xeebul li ngeen ciy def itam ndax umpule wuñ woon ni suñ ñëwul woon fii itam lu ci war di ngeen ànd ak chef de service yi taxawu ko ba lépp mat waaye dafa am ay màggal yu ñuy seere Touba yu ñuy fekke Touba ñu koy xool di ko fekke lañ ci gis lañu fay def ñun màggalu sëñ Bara gi dekk Mbàkke Kajoor ñu gis lañ fay def waaye bu ma xoolee kayit bi nii ci wàllu hydraulique bi xëy bu ñu lañ fay def waaye suñ ko mën a yokk ñu yokk ko ndax bu ñu nee ñaar fukki bâche wala waaye kay na loolu la ak juróom-benn seetal ñun Mbàkke Kajoor fukk la ñuy jox fukki seetal la ñuy jox ak 60 bâche te xam ngeen ne Daarul Xuddus waa kër Cheikh Moustapha yi amul kenn ku fay a geneen màggal seen lépp dañ ko fam tënk ko ci màggal gi kon màggal gi gëdd bi nga xam ne moom la am daye bi mu am nañ ko jox daye boobu